loolu daal bëgg waxtaan ak moom ci li nga xam mooy l'immigration clandestine waaye tamit vraiment ci nouvelle forme yi nga xam ne mi ngi koy mi ko koy amee aussi sur les enjeux président ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax a baax ci émission bi. Amidou maa ak sa sa équipe équipe bu jeune équipe bu bu entrepreneur. Mhm. Euh, maa ngi nuyu seen seen téléspectateurs yi. Euh, bon di naqarlu rek euh, à chaque fois ñun suñu yëkkatee suñu kàddu en général. Mhm. si wàllum immigration irrégulière la wax. walla gaal gu sàmbaraax ak wala ku des si ndox beeg walla problème bi du suñu sago nag tamit euh, pour ñu kii mais option la parce que dossier la boo xam ne dañ ko dund euh, dañ si dox euh, dañ si xam et ñu bëgg suñu réew bokk si réew yi nga xam ne réew yu yi nga xam ne jeunesse bi war nañu mën a gis seen bopp si liy doxal réew mi addu bi nag addu defar rek la Euh, wax ji tamit léeg-léeg du nekk wax ju neex si ñu koy jot mais nañu jàpp ni que defar rek moo ñu si tax a jug par ricochet euh, ngeen permettre ma balaa ñuy sori si waxtaan bi euh, suñu xol dafa naqari suñu xol neexul ñu jaale eh, mbokk ñi nga xam ne dañu des si waax yi Fass Boy mooy bi mujj ñu ngi ñaanal ñi si des yal na leen yàlla xaare àjjana ñi si tumuranke eh, feebar yal na leen yàlla delloo seen sago xale yi ñu delloo si ak bakken yàlla na nekk luy laf seen cat ubbi leen yeneen wërsëg ak yeneen xéewal ñu koy ñaanal nag eh, doomu Sénégal fu mu munti nekk ñu koy yéene jàmm di ko ñaanal tawféex di ko ñaanal yal na yàlla ubbi wërsëgam te bu ko yàlla bu ko dara jafel ba nga xam ne mu am lu ko tiis wala lu ko naqar lu ko naqari ci lool la ñuy ñëw sax je pense que ci la ñuy ñëwaat muy problème mu face boobu parce que ba ñu gisee li nga xam ne mooy immigration bu ni mu tolloon donc l' du Sénégal def na sax une stratégie de lutte nationale boo xam ne dafay lutter contre l' immigration clandestine mais affaire face boobu dafa mel ni président donc dañuy gis ne affaire bi mi ngi doon jàpp ne dafay jeex mais waajagul bay bay jeex dafa mel ni ñu ngi encore ci li nga xam ne mooy début wu problème mu immigration clandestine Euh, su may wax waxu Fass booy damay am tristesse euh, Fass Boy avant Fass booy wax nañ ko Tëngéej wax nañ ko Kafountine wax nañ ko Ndar daanaka sunu côté yëpp la euh, je pense que liñ si wax bëri na te duñu bàyyi tamit di si wax répétition bi mooy nañu jàpp ni que par rapport ak philosophie bi am mooy ni que picc yi dañu migrer animaux yi dañu transhumer nit yi ala kulli alin dañu voyage donc faciliter leen voyage boobu mooy li war euh, li xew Fass Boye au-delà de la tragédie sa euh, interpelle sunu conscience ak sunu responsabilité sociétale mais surtout sunu responsabilité familiale euh, balaa may wax waxu responsabilité wu état bi ba léegi damay toog di jàngat di def ay analyse pour xool nan la kilifa bu yore njabootam di xoole juróom benn ci ay njabootam di jël gaal ak risque bi ci nekk puisque amul évidence mais président est-ce que aussi tamit nit ñi yegg nañu loolu c'est-à-dire la responsabilité parentale dañ koy mën a wax mais est-ce que aussi nit ki xam na ni exactement doomam yi ñu ngi jël gaal di dem aussi des majeurs aussi vaccinés xam bu baax a baax li nga xam ne mooy mooy les enjeux de l'immigration clandestine aussi. dañ koy contextualiser te ñu waxante dëgg ngir yàlla. Mhm. ndaxte daf si am comme ni mu la ko waxee si am naqar bu si am am tiis bu si am. Mhm. amaana ni ku xool juróom benni doomam jël gaal. Mhm. ñàkk pexe mu ngi waaye tamit am na leneen lu mu ko waroon xoolee maanaam tey man dama jàpp ni tey kuy jël gaal muy ku xam ndox. muy ajoor ajoor xam nga ni am na risque bu ngande bu si nekk mooy mën nga yegg comme mën nga bañ a yegg mhm. donc bu nekkee loolu mooy solution alternative dem bi yaakaar naa ni risque bi warul woon toll ba ngay jël juróom benn nga koy xam mhm. nga ànd sa sago ngay bàyyi sa juróom benn doom wala sa juróom benn mbokk ñuy jëlandoo benn yoon gaal pour dem kooku bu loolu jàngat bu rëy la parce que tamit mhm. balaa ñuy dut baaraam gouvernement parce que léeg-léeg dañu jaawatle gouvernement ak état état yow si nga bokk ki toog di ñu seetaan si la bokk mm-hmm. man mii si la bokk gouvernement bi si la bokk mm-hmm. militaire bi si la bokk mm-hmm. sapeur pompier bi si la bokk marin bi si la bokk pêcheur bi si la bokk ñun ñëpp ñoo fondé nekk état mais da si am ci biir état ay pàcc yoo xam ne ñoom lañ ko dégg muy gouvernement foofu nag ñoom seen responsabilité dañ ko engage si ki drame Fass Boye draamu Fass Pouye bi war nañ si mën a indi jàngat bi wër euh, ki bàyyi njabootam mu dem ba njabootam des foofu maa ngi koy jaale mais réponse na xoolaat boppam tey bu tëddee conscience am warul nekk tranquille parce que amoon na nu mu doon àddu man de ku bàyyi benn wala ñaar dem mais ku bàyyi juróom benn dem xam nga di xew te amul gaal buy génn fii man nag maa ko wax samay responsabilité la te jàngat moo tax ma def ko amul gaal buy génn si waax yi di dem te amul ñu ko xam et pour preuve Fass mhm. mooy ni que bi ñu toogee ay fan mhm. gaal gi yeggul alerté nañ alerté nañ c'est loolu mooy preuve bi mooy mhm. ni que xam nañu gaal gi génn na yeggagul ñooñu nag alerté gaal gi yeggagul xamoon nañu ni gaal gi kenn. xamoon nañu ni gaal gi dem na est-ce que tamit duñu ñëwaat ci gouvernement aussi li muy wax ci wàllum répression c'est-à-dire dañ ñëwoon dañuy réprimer ñi nga xam ne mooy les convoyeurs ak ñi nga xam ne ay complices lañ ci wàllu immigration clandestine mais tollaguñ foofu ba tey. maa ngi ñëw. Mhm. waxtaan la rek c'est-à-dire on va on peut situer les mhm. de face boobu. waaw a gis nga mooy nucléo familial bi nucléo sociétal bi mais nucléo gouvernement la responsabilité gouvernementale est engagée à cent pour cent par rapport ak trajet parce que ñooñu bu ñu génnee ba seen famille alerté mais ça fait maintenant plus de trois semaines on n'a pas de nouvelles gaal googu euh, gouvernement waroon na jël lépp luy moyen lépp luy pexe dem à la recherche de ce de problème am def nañ ko wala defuñu ko en tout cas ils n'ont pas communiqué si loolu au contraire way bi information bi ñëwee après dañ doon polémique mhm. polémique yooyu nag c'est de leur responsabilité d'informer de communiquer mais également de sauver les citoyens qui sont en dérive et qui sont en détresse les responsabilités foofu nag gouvernement dafa faillir dafa faillir parce que dem na ba di polémique mhm. tey ñi ne woon gaal gi yeggagul ñoom ils ont eu raison sur le gouvernement qui dit que on n'a pas l'information mhm. gaal bi ñu génn ñu ñu wax liñ ñu wax liñ ñu wax liñ ñu wax tey conséquence bi mooy 63 de nos enfants sont restés en mer c'est dramatique et c'est irresponsable man foofu lay waxee mooy ni que à l' mhm. u genre alerte yi boo amee. Mhm. nañ ko jël au sérieux ñu jël tous les dispositifs d' alerte et de recherche. Mhm. yi si am ñu def ko amaanoon na suñ ko defoon très tôt. kon du doon kon dina doon am conséquence mais conséquence bi ñu toll nii. man lecture boobu laa am si face. état bañ a taxaw di seetaan sa dem wàññi bi ci wàllu situation yi ni en tout cas. Mhm. bu alerte amee. Mhm. ni ñuy jël alerte yi au sérieux. au sérieux mhm. jël le protocole qu'il faut accompagner ba nga xam ne lool moo si am. c'est un c'est c'est c'est une responsabilité partagée. c'est une responsabilité partagée de la société que nous de la famille di leen di bàyyi ñuy dem wala ñu koy xam te duñ ko kii. mais sur ça nag vraiment il faut rendre hommage à nos forces de sécurité et de défense. gis ngeen euh, li ñuy jàpp ni que gaal réer na wala kii mais y a une très grande force de dissuasion bi si nekk. tu me parles de répression de de malheureusement. Euh, dama koy wax euh, ñi nga xam ne ñoo nekk si dispositif wu immigration irrégulière. ñuy xoolaat bu baax yan mécanisme lañu ñu teg répression certes. y a des criminels dans cette affaire. Il y a des convoyeurs yu ñu war a récriminer bu baax sax. les convoyeurs les mm-hmm. passeurs. dans mm-hmm. tout euh, c'est un réseau mm-hmm. autour de cela. qui gagnent de l'argent euh, ils sont à chercher. traquer et à condamner je suis d'accord mais de l'autre côté aussi voyons quels sont les inconvénients. qui font qui poussent ces jeunes là à aller vers ces cette mafia là. ça aussi il faut le débusquer. pour trouver des solutions il faut qu'on aille au fond de cela. mais président yow ci wàllum immigration nga nga nekk am ci association question boobu noonu ñun nga koy posé wala sa bopp nga koy posé. su ma nee responsabilité euh, partagée la quand je me pose la et je le transmets. Mhm. de la quintessence de la profondeur de cette question. Mhm. pour que tout acteur boo si nekkee nga bàyyi xel si parce que solution bi foofu la mooy ni que ces questions qu'on se pose ensemble si on se renvoie les questions mm -hmm. c'est dans la contradiction que jaillit la vérité et cela fait maintenant presque plus de, de plus d'une décennie que nous sommes les pouvoirs publics ont investi ouais. énormément d'argent sur cette affaire il y a eu des programmes il y a eu des projets il y a eu énormément de rencontres de discussions mais ba léegi amul moi je suggère que nous changer les paradigmes mhm. par rapport à cela. S'il y a une communication, comprenons que la communication n'a pas réussi. S'il y a une sensibilisation, cette sensibilisation n'a pas atteint sa cible. Mhm. Voyons qu'est-ce qui ne va pas. Moi, à mon entendement, ce que nous proposons à ces jeunes mhm. ne reflète pas à ce li xale ñu bëgg. loolu c'est une contradiction tey xale yi il faut que ñu xale yi ñooy ki tey boo amee marchandise di ko jaay te gisoo client xoolaatal sa marchandise. Donc les programmes proposés, les projets financés, mm -hmm. l'argent investi pour éradiquer l'immigration irrégulière n'a pas donné de fruits, n'a pas donné de résultats. donc nañu xoolaat beneen stratégie. mais nag foofu dama li ciy laaj benn question cest yaa ngi naan programme yi nga xam ne moom la def financement yi nga xam ne moom la ñu def réussir uñu pense que ni problème bi est-ce que duñu xoolaat tamit ñu dem un peu un peu plus loin cest problème yi mooy programme yi moo réussirul wala c'est l'état ci boppam moom moo koy def comme benn forme de politique nii seulement cest à pour apaiser la population après doxi ji ci li nga xam ne moo ko neex c'est-à-dire pas une priorité boo xam ne ñoom dañ koy afficher nii rek mais au fond donc c'est pas une priorité donc yaa may fekk si si li mu lay mm-hmm. communication bi marché mm-hmm. donc fekk si nga ma foofu mm-hmm. te leneen li ma si mën a teg mooy ni l'ADER, délégation à l'entrepreneuriat rapide, mhm. les 3 FPT pour financer les, formations, l'ANPEJ, mmh. pour financer l'entrepreneuriat. Mmh. La question que je pose, moi, est-ce qu'il n'y avait pas l'immigration irrégulière, programme yoy, comme d'autres existait Donc, si sans immigration irrégulière, ces programmes-là n'allaient pas exister, quand ils se sont trompés. donc programme yooyu ak immigration ou sans immigration projet yooyu dafa war a exister mhm. donc bu ñu associer programme yooyu avec l'immigration irrégulière naam nag programme yooyu mu ne répondre pour atténuer l'immigration mhm, irrégulière le problème mhm. mais amaat na yeneen source yeneen foyer yoo xam ne mooy attirer xale yi vers l'immigration irrégulière yooyu esquisse de solution la gis nga programme euh, Euh, programme yooyu structurel yooyu. Mhm. ce n'est que 30 pour cent de la voie de solution au problème loolu mooy li nga xam ne dëgg-dëgg mhm. parce que tamit il faut que ñu waxante dëgg. parce que mënoo investir autant d'argent. mënoo mhm. investir sur autant de kii. avec tout le temps que ça ba tey nii amoo solution. dafa am fenn foo xam ne da ko war a laal laaloo ko. donc xoolaatal lan la te am na lenn loo xam ne tout le temps dama koy wax Sénégal ñu ngi ñu ngi ciy ñu ngi ciy def ay jéego. Mhm. Euh, tout récemment ils ont mis une stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière. irrégulière. Mhm. dama ni. Mhm. Euh, pour le, le gouvernement du Sénégal nay identifie qui sont les acteurs réels qui s'activent autour de cette question. mu fexe mu toog ak ñoom ñu bàyyi pëcc xoo bi gis na affaire bi dafa am xaalis bu ci am. te xaalis boobu day attiré ñu bëri. kon dafa am ay enjeux yu si nekk. am na ay enjeux yu si nekk. Mhm. mais nañu xool ñan ñooy les véritables acteurs ñuy partagé ak ñoom gis nga man dama jàpp man man man personnellement. Mhm. dama jàpp ni tey am na si ay ay ay identité yoo xam ne munoo wax waxu immigration irrégulière au Sénégal te ñooñu associé wu leen si euh, kii de réflexion bi. ku mel ni Adia Ta Ta Adia Tandia professeur. à mhm. l'UGB. yore laboratoire de réflexion sur la migration irrégulière sur la migration en général mhm. munoo def fi dara Sénégal te boolewoo ko mon ami Boubacar Sèye mhm. ak lu munti xew mhm. c'est l'un des premiers lanceurs d'alerte sur la question Boubacar Sèye ak lu munti xew su nekkee da nga bëgg a solution te bëggoo ut discrimination Boubacar da nga koy woo mu ñëw toog madame Ngoné ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur comme maman comme femme comme ouais. porteur d'espoir pour sensibiliser elle a été dans le gouvernement elle connaît ce dossier nguur yi da nga koy woo responsabiliser ko mhm. Ndioro Ndiaye dañ di woo autant de personnes yoo xam ne mën nañ leen woo mhm. et d'ailleurs tout le temps loolu laay wax et je le répète puisque c'est ce n'est pas une reconnaissance mm -hmm. mais c'est ça la vérité si ce n'était pas le lieutenant Henri VI. bu mhm. ministère de l'intérieur am na ay rencontres yu bëri yoo xam ne dama stratégie validation stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière mhm. bi ma waxtaanee ak moom lañ ma si associé te bi ma demee si atelier boobu mhm. ça m'a tey may wax waxu stratégie nationale de lutte contre l'immigration mais Henri nekk qu'un fonctionnaire mhm. il agit sur des ordres. On félicite vraiment, on remercie l'excellent travail qui a été fait par Monsieur li mhm. qui est bi ak le le le commissaire euh, Mamadou Bokar euh, Ly. Mhm. ñoom ñoo yore kii mais vraiment liggéey bi def nañ ko. Mhm. liggéey bu baax la. c'est une première au Sénégal. vraiment le gouvernement du Sénégal doit doit féliciter ses fonctionnaires parce que tamit tey am nañu support mais loolu doyul. l'initiative dafa war a jóge ci li nga xam ne mooy le. pouvoir public c'est-à-dire pour woo ñi nga xam ne les personnes ressources la donc warul jóge ci ay fonctionnaires mais c'est le pouvoir public qui doit initier cela. non le fonctionnaire est limité parce qu'il reçoit une commande de l'État par rapport à une orientation bien donnée. Mhm. et nous nous retenons que au Sénégal il a une politique restrictive de la migration. de mm de l'immigration. Mhm. ñeneen mën nañu ñëw. Mhm. mais ñun pour ñu dem dafa am ay gàllankoor yu bari il faudrait que acteurs yëpp ñu toog te ñu waxante dëgg c'est pas que rek ñu ñëw toog ñu jàpp ni que autre Africa était à la table mais la contribution de autre Africa mën na bañ a nekk dëgg mais autre Africa Fazer bu Youssou Mbengue ak keneen suñu toogee l'ensemble le décideur ki a l'autorité publique mu dégg li ñuy wax mhm. bañ a fusé wu si ay orientation yoo xam ne ay orientation dictée la loolu du solution mhm. parce que nag nañu reconnaître une chose presque programme yi ñuy wax ni yëpp. Mm-hmm. li si ëpp si aide au développement lu jógee aide au développement fu mu jógee union européenne union européenne la jógee projet yu si bëri loxo union européenne mu ngi si. Mm-hmm. union européenne lu mu bëgg a barricadé wu par rapport ak ñu parce que suñu xale yi fi ñuy jëm yëpp. Mm-hmm. si côte méditerranée bi. c' est l' Occident. c' est l' Occident. Portugal Espagne France. foofu la ñu jëm code boobu la ñu wut. te code boobu ñoom tamit dañu barricadé wu. barricadé wu di ñu financé pour jàppale que bu xale yi dem. Mm-hmm. donc suñu leen toppee si loolu ñoom seen bëgg-bëgg lañ nekk di dem. Mm-hmm. du suñu ay bëgg-bëgg doom. Mm-hmm. suñu ay doom dañu bëgg a dem. donc ñoom ginnaaw ñoom ñun ñuy bu xale yi dem. xale yi dañu bëgg dem choc am na foofu choc mooy xale yi ñuy foofu fort tout si géej gi. il faudrait qu'on trouve des solutions. suñu partenaires yooyu il faudrait que état du Sénégal la diplomatie sénégalaise. xam naa ni bëgguñu sacrifier suñu ay doom. doom yu ñuy si ay géej gi neexuleen. mais naqar bi fu muy am mooy ni que tamit nañu xoolante dans les yeux et on se dit la vérité. Mhm. la vérité mooy ni que gis na à 60 pour cent. à 60 mhm. pour cent suñu toogee ak nos partenaires au développement suñu toogee avec les pays alliés les pays d'accueil mhm. nañ leen wax le problème crucial on le dit on le crie orbi on le crie ourbi on le dit partout où on a l'opportunité de le dire il faut qu'on les regarde en face l'Italie l'Espagne la France, le Portugal, le Belgique, ces pays européens, ils n'ont qu'à comprendre. Les Schengen, mm -hmm. ils comprendre. C'est eux les facteurs qui poussent à nos jeunes d'aller vers la migration clandestine. C'est les questions de visa. C'est le problème bi kon boobu problème mu visa la ci loolu nga bëggoon ci loolu nga bëggoon taxaw président c'est-à-dire li tax xale yi di jël li nga xam ne mooy ndox mi du leneen lu dul li nga xam ne mooy l'espace Schengen pour pousser nit ñi ci ndox mi donc dafay. permettre xale yi donc ci conditions yi ñu nekk donc li pour am visa bi dafay metti trop trop trop loolu nga bëgg a wax. Euh, ma leeral ko. Mhm. si la bokk. problème mu visa bi. Mhm. li ëpp si la boq mhm. xam nga lan moo koy firndeel. exemple rek laa leen di jox pour ñi xam dëgg-dëgg ni muy demee. géej gi la jël tey xale gis nga géej gi du facteur. géej gi ba gaal gi moyen de transport la tey xale bi dëkka Ngor Yoff Ouakam xale Fass Boye Lumpul xale Kayra xale Kafountine xale bi miin géej mm. am na ñoo xam ne tey boo leen neewee ni ñu jël gaal dem Espagne ak ñu jël avion jël Espagne jël gaal gi dem Espagne moo leen gënal xam nga différence bi fan la amee mm-hmm. tey xale bi jël gaal ak xale bi jël avion mm-hmm. xale bi jël avion bu eggee aéroport lu muy génnee mm-hmm. passeport ci biir passeport bi lu si nekk passeport bi su amul visa dañ koy delloo ci biir avion bi dañ koy delloo si waat à l'aéroport mhm. xale bi jël gaal dem egg port euh, Las Palmas mhm. wala Lampedusa yore passeport ci biir passeport bi mu am visa su ñëwee jox ko policier bi policier bi lu mu koy def est da koy delloo parce que si géej nga jóge est-ce que da koy delloo ndaxte gaal nga jël non du ko delloo. parce que am na visa am. Mm-hmm. mu ngi ak passeport am. c'est jël avion bi lan moo tax ñu koy delloo. parce que amul visa. Mhm. donc gaal gi moyen de transport la. Mhm. tey nappakat. Mhm. nappakat mu jël gaal moo ko gënal mu jël avion. ki xam ndox mu jël gaal moo ko gënal mu jël avion. donc avion ak gaal moyen de transport la problème bi problème mu visa la. problème problème mu visa la foofu lañ ci foofu taxaw mais tey jii nii président dama bëgg nga ñëwaat un peu ci li nga xam mooy conscientisation parce que yaa ngi wax sànq ba tey ci problématique bi par rapport ak l' état par rapport ak gouvernement parties prenantes yi nga xam ne ñoom ñoo war a mettre en place des politiques vraiment pour retenir les jeunes mais bu ñu ñëwaatee ci sensibilisation sànq yaa ngi koy wax face booy donc xale yi ñu ngi jël ndox mi mais actuellement dañoo gis ne sax yeneen forme donc d'immigration la xale yi xale yi jël cest à nit ñi léegi ñu ngi jaar jéeri ji ñu ngi utiliser aussi yeneen canaux comme lu mel ni yoonu Nicaragua bi aussi pour génn li nga xam ne moo le Sénégal donc c'est pas illégal ku fi jógee di dem Colombie de vie normal c'est pas illégal la police aux frontières en train de faire le travail qu'il faut par rapport ak loolu Euh, je profite de de de de émission vraiment man su ma déggee ñenn ne suñu frontières yi dañu përeuse. Mhm. dama yaakaar ni ki toog di añ añam wala di reer reeram. Mhm. yore min ataayam di naan. Mhm. dafa fekk mu am euh, ah. mais mais mais mais président bu ñu xoolee ni xale yi di jaaree si suñu géej gi bateau yi nu ñuy nu ñuy rombee boo xoolee gaal yi nu ñuy rombee donc on peut se dire un ne vraiment am na benn laxisme boo xam ne mi ngi am ci wàllum contrôle de nos frontières aussi surtout ci wàllum ndox mi aussi. Euh, am na ku toog léegi léegi di xool sa buntu kër. Mhm. dem dajji ko. waaw loolu am na. te pourtant am na ñoo xam ne. Mhm. ñun dañu tëdd ba yàndoor. sur problème de sécurité et d'intention ku am intention dem irrégularité la police et la gendarmerie en train de faire un excellent travail de dissuasion mais doyul les dernières crises yi fi am mhm. ñi nekkoon di dissuager di renseigner wu ci affaire immigration yëpp mhm. dañ leen redéployer sur des questions de sécurité publique des questions de renseignement d'État donc pro mhm. j'en profite vraiment pour euh, pour saluer l'inspecteur général euh, Mame que xaw ma ko nag bu baax. Mhm. mais liggéeyam. gis nga travail bi mu muy def liggéeyam mhm. laa jàpp. Mhm. mu nekk nit ku tey. un policier chevronné qui sait faire de la dissuasion. et eh bien également un, un, un grand frère à moi un capitaine de la gendarmerie avec qui vraiment on échange sur les questions puisque tamit il faut reconnaître que nos forces de sécurité et de défense la police entre nous ce sont des Sénégalais comme nous c'est ñi di des si waax yi dañ si am ay njaboot donc bu ñu seetaan yenn yi. moi j'ai parlé à un officier de la police daf ma ne xam nga lan. Mhm. mu neex mu naqare bu ñu seetaan suñu doom yi di xaru ci biir géej gi. Mhm. fu ñu leen munti fekk ñuy organiser dañu dal seen kaw jël leen téye leen ba seen xel dellu suñu delloo seen njaboot. ça c'est patriotique. Mhm. laa le discours réel ko mois je veux entendre de de force de l'ordre mais de l'autre côté bu ñu téye sa doom. na nga xel xalaat ni que ba moom mu wax la ni mu demee. je vais vous dire une chose qui est ah. paradoxale, et ce que je dis tout le temps aux, aux, aux, à la police, mm -hmm. la répression, sur les questions de la répression. Nous changeons de débat. Est-ce que vous savez que nous sommes C'est très rare que nous sommes sur le capitaine. Voilà. Nous avons le capitaine, parce que nous savons que nous sommes te xam nañu capitaine ñoom xam nañ kan lañ fay seen xaalis. ñoom bi ngay yëg si gaal gi. Mm-hmm. am na kenn koo fay sa xaalis. Mm-hmm. gaal gi bu yeggee tabaar fa kan la ñu ñaanalante. gaal gi bu savuré doo gis ku ñëw taxaw ne ma kumba mii ma paate mii ma sàmb mii ma laa fayoon sama xaalis pour kii ko donc l' esprit de la répression mhm. nañ ko xoolaat xandi la ñu mhm. nañ ko wax mu leer ñu am audace am fit ce sont des délinquants ce sont des voyous mhm. c' est lâche à la limite euh, de de de d'aller jusqu'à des chantiers de de faire des pirogues destinées à faire mourir des jeunes seen lâche <laughs> war nañ ci gën a jóg ci wàllum ci wàllum rek ci wàllum rek wala ku si lekk lu toll ni trafatul ay ni yaa ngi lekk riba yaa ngi lekk deret <laughs> képp ku am initiative bu nekk di di di di gas di di defar gaal bandi nga ne la état fekk fu la munti nekk téye la nee ràpp si kaso mhm. loolu je suis parfaitement d' accord ak ñoom. démantèlement réseau yi dañ cee war a jóg nu mu gën a gaawee. comme li nga li nga li nga wax ne doomu yaa ngi laal sa deretu morom. Mhm. kuy jël di encouragé kuy jël di encouragé xale yi pour ñu jël ñi koy defar. Mhm. kii di jëndi moteur bi kii di koy yeb. yéen ay bandi waaw ñoom ñëpp ay ay bandi lañ kon démantèlement réseau bi na ci gouvernement bi je pense que nag même procureur entamé woon na li nga xam ne mooy des enquêtes pour xool exactement ñan ñoo impliqué dans ces genre de dans ce genre de truc mais bu ñu ñëwaatee un peu président gis nañ aussi bu ñu leen jàppee dañ leen di répatrier la plupart du temps mais aussi bëgg naa nga ñëw aussi ci li nga xam ne mooy conditions yi ñu nekkee ci ci ci poste de frontière comme lu mel ni Dakhla comme lu mel ni par exemple aux États-Unis ñu ngi koy wax aussi maintenant conditions yooyu noonu ñi nga xam ne moom la ñu nekkee d'abord balaa ñu leen di répatrier donc yan façon condition la parce que bëgg naa aussi ñu sensibiliser les jeunes yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi déglu ci yan genre de condition la nekk bu ñu nekkee ci camp yooyu noonu. Eh, yoon bu bees la. nit yi dañu dem. doomu aadama yi dañu dem de tukki. Mm-hmm. ku dul tukki du xam fu dëkkuwaay neexee olof Ndiaye ko wax. non mais légalement président. j'encourage ce qui légal. Mm-hmm. du ma encourager jamais irrégularité sama sa fait ça fait ça fait vingt ans maa ngi jël sama sama dund jël sama kii yëpp ñibbisi pour ne bu leen jëlee yoon boobu. Mm-hmm. je l'encourage pas mais il faut qu'on se dise la vérité. gis nga xale yi mënutul leen nax xam nga lan la ñu war a def. xool nan lañ leen di accompagner ñi nga xam ne mën nañu dem ñu ne leen ñii mën nañu dem ñii mënul dem ñu toll leen yeneen alternative mhm. fii da nga gis kenn koo xam ne il remplit toutes les conditions mhm. imaginez ko jaay atelier wu menuiserie wam mhm. fayal ay frère ay xaritam pour ñu jël waax yi kooku bu amoon possibilité am visa d'une façon normale d'une façon légal dina jaay atelier wu voilà les sources fi ñu war a régler c'est-à-dire son bi gouvernement bi son bi ñu leen di wax. son boobu la xale yi mënul dégg. te dëgg-dëgg bi ñu leen mën a wax mooy ni que ñëpp mënuñu dem. waaw loolu mooy dëgg. Mhm. nañu xool ñi si mën a dem. ñu accompagner leen te am na si ñoo xam ne lenn la ñu def. Mhm. bëgg a dem bëgg a ñibbisi. Mhm. am na si ñoo xam ne dem sax boo leen laajtee sax lu tax ngay dem xamuñu sax. sànq maa ngi waxtaan ak sunu benn xarit. Mhm. bi ma poussé poussé poussé ba moom daf ma ne je suis am naa lii rafet naa jekk naa professionnel laa jaar naa bi ma ko poussé ba pare bi mu ko nee lan moo tax ngay dem. Mhm. far nga bëgg a dem xamul sax fu mu bëgg a mm-hmm. moom daal dem rek. Mm-hmm. di waxu dégg dégg nañ ko rek. te échantillon bu réel la. Mm-hmm. sànq rek laa ko expérimenté waxuma la nag ñi nga xam ne dañ leen dellu si. c'est ça la réalité des choses. il faut qu'on puisse accompagner nos jeunes à c'est ce qu'ils veulent partir. et qui remplissent les conditions de partir. gis nga yi ñuy wax noonu am na lu mu mën a servir. aujourd'hui man je prône et je le dis. l'état du Sénégal dafa war a am un office national de xale bu bëgg a dem Slovaquie wala xale bu bëgg a dem Espagne wala xale bu bëgg a dem Italie ñu teel ko préparé xam nga nan lañ koy préparé Adja mi journaliste la média moo ko intéressé mais daal ak feeling bi mu am yëpp Italie mooy feelingam ñu ñëw nee ko dama la office ba nga bind remplir les conditions yooyaay faire sa bopp sa voyage da ngay cotiser pendant trois ans chaque kii nga ñëw joxe cinquante mille. Mhm. ñu ubbi la benn bourse ngay dem di jàngi italien. Mhm. dégg nga. Mhm. boo demee di jàngi italien yaa ngi versé état wu Sénégal xam nañu Adja mii dafa bëgg dem. mais dans trois ans fekk ñu ngi waxtaan ak état wu ñu ngi waxtaan ak italien yi. ne leen on prépare cent jeunes. mille jeunes yoo xam ne dañu war a ñëw si à la migration légale. dans divers secteurs. waa. ambassade Italie di leen jàngal italien di leen jàngal culture italienne di leen jàngal instrument yi mhm. xale bi di cotiser di fay au bout de deux ans condition demam ñëw na ñu jël si xaalis boobu mu doon cotiser jëndal ko billet wutal ko hébergement mu dem Italie fi mu bëgg a dem renforcer ay capacité am jàng liggéey su amee xaalis au bout de deux ans ñu ne ko sa contrat deux ans ngay war a nekk Italie au bout de deux ans da war a dellu si waat Sénégal toog fi au moins un an wala deux ans balaa ngay dellu Italie président dinaa dinaa ñëwaat un peu dégg li ngay wax nii si pense que c'est une bonne idée c'est une bonne idée lu ñu war a mën a def la mais tamit damay damay gis ne Sénégalais yi aussi boo laaj laajee pourquoi ngeen bëgg def immigration clandestine dañ naan vraiment amatuñu benn confiance li nga xam ne mooy mooy pays bi donc est-ce que tamit waruñu utiliser lépp li nga xam ne moom la am cest à toutes nos ressources pour mën a téye les jeunes cest dire jox leen confiance fii ci Sénégal wan leen vraiment vous pouvez rester ici mais aussi vous pouvez travailler ici mun ngeen prospérer ici dans ce pays est loolu mooy politique bi nga xam ne moom mooy la politique ultime bu ñu bëggee arrêter li nga xam mooy immigration clandestine. la bonne gouvernance waaw surtout. de bonne gouvernance tey man. mënu ma nekk politicien suñ ma newee demal nga déposer ji visa mooy yóbbu relevé bancaire bu am un milliard mhm. kële am problème mu am relevé bancaire un million mhm. nos ressources naturelles xale yi ni ñu gis seen bopp si napp Mm-hmm. nañu gis seen bopp si or seen saba dollar nañu gis seen bopp si zircon euh, bi nekk fii si si lu fa luppul fas fas booy mm-hmm. nañu gis seen bopp si alalu réew mi dans la répartition équitable de nos ressources mm-hmm. et de nos biens d'abord il faut ramener la confiance à ces jeunes les jeunes il faut qu'ils rêvent par rapport à ce pays là s'ils ne rêvent pas de ce pays ils ne peuvent rien ah, réaliser loolu mooy li am tey ki toog États-Unis ki rêve États-Unis le rêve toutes nos tey boo demee football yi léegi boo amee antos léegi léegi. nga dem si hôpital boo xam ne dañ lay defal léegi léegi scanner. plâtre la léegi nga nekk si chambre bu confortable. tey ki évacuation sanitaire yi boo feebaree bul xalaat dem bitim réew. tey nga am ay ay ay yoo xam ne l'actrice qui veut faire aujourd'hui sa production mu am fu mu ko defee au même niveau même kiif kiif le bien-être européen lan nga fay defi. xaw ma ko. donc dañoo parlons ces ay nii. Mhm. Euh, euh, nu mu tudd BRT bi mu ngi nii te nu mu mhm. c'est bien réel tey lan la bëgg les conditions améliorer les conditions de vie des populations. Ah, tu ne peux pas retenir un jeune. Mhm. au moment où le coût de la vie au Sénégal est à six cent mille francs. Ouais, ouais. un jeune n'arrive même pas avoir cent mille. chômage trop. chômage bu endémique. chômage bu endémique. mun see génn mhm. xale bi mënul am quatre vingt mille franc le coût de la vie à six cent mille franc mu tey xëy di gis moromam bu nekkoon. Euh, euh, nu mu tudd marchand ambulant Milan wala Madrid wala Paris. ñëw indi 3 millions xool jeg ji gën a rafet si koñ bi. ñëw xam nga jox ko daaw daaw oto yi gën a rafet. oto bu rafet nga koy mm. ne non le l' Occident. l' Occident c' l' Eldorado. Mm. tu mm-hmm. mm-hmm. gis. effets lay gis c' est mm-hmm. loolu la ñu war a dox cest à la sensibilisation vraiment c'est ici au niveau national nañ def de telle sorte que ba les jeunes. di mën a rêver fii ci Sénégal am confiance ci li nga xam ni mooy mooy réew mi donc loolu mooy régler immigration clandestine président sunu temps bi ñu may mi ngi mi ngi jeex ma jox la kàddu gi il faut que les capitaines d'industrie qui sont ici, qui se sont faits ici, les, les nongo d'art mm -hmm. qui ont produit, qui sont ici, il faut qu'on les valorise. Yeah. Il faut que nous voyons que nous tout qui teki, mhm. donc nous voyons mhm. tout qui tout mouranke d'affaires am. Consommons local, nous bagnons quoi c'est que tu es. Demandez, man, demain de l'année nous menons la production oignon. Si nous demee ba somme dañ koy dem djeba neli, soupe c'est net neli, belle ligne nous voyons non, ak ak ak qui qui venu en fille c'est fouta. Soupe daal di ji mhm. wax dëgg yàlla. Mhm. politique bi moo domine suñu réew. waaw alors qu'on doit travailler dafa jot nit ñi liggéey. l'axe principal de la réussite dans ce pays. Mhm. c'est le député c'est le ministre alors que l'axe développement ci réew. xam nga ci lan la. c'est les capitaines d'industrie. boo ñëwee jam ñaa boo ñëwee aéroport AIBD. ñu ne la avion bële. doomu diw sangam. moo ko fa gaare. dafa war a dem léegi Johannesburg. ñu ne la gis ngeen gëtte yële ngeen gis. ñu koy exporté. Samba sa Samba Ndiobène taay bële. moo moom gëtte bi c' est de développer des capitaines fii ñoo xam ne loolu mooy kii xale yi mën a gëm seen bopp. vraiment ñu xam ne ah fii la ñu nekk. ñun nag léeg-léeg wax ji dafay xaw a tagga témbe mm-hmm. ñenn jàpp ni que dañu xaw a man mm-hmm. je dis de lever les restrictions de voyager des jeunes man dama ko wax je le prône. Mhm. mais cette restriction là doit être encadrée. ñi préparer leen ñi mën a dem ñu dem ñi mënul dem ñu dem mais surtout de parler à nos partenaires les pays d'Europe. Mhm. pour ñu xamal ne leen xam nga lan la. Mhm. boo leen bëggee suñu or suñu pétrole suñu zircon suñu lii. dañ ko teg si ay conditions yu leer. mënoo leen barricadé bëgg sunu alal sunu ay doom du ñu dem foofu. Mhm. loolu nag diplomatie rek moo ko mën a. rek moo ko mën a rek président ñu ngi lay jaajëfal donc nañ ko def de telle sorte mu nekk gagnant gagnant gagnant donc ñu ngi lay jaajëfal jox la kàddu gi bu fekkee da ngay def euh, un dernier nga def ko ñu doog a clôturer. am na ay nit yoo xam ne souvent su may wax ci télé bi dañu am mbégte. Mhm. di ma déglu di seetaan euh, bon soxna Aïssa. Euh, ay Khadijatu Khadijatu Aydara. Mhm. Euh, soxnawu maître Madické Niang. Mhm. dañu bokk màkk. dëgg la muy mu won ma yar won ma teggin. Mhm. Euh, defal ma ay teraanga kooku munuma di ko fàtte su may wax si samay kii. Euh, samay interview vraiment de elle m'a marqué elle vraiment marqué par rapport ak yaram ak tegginam bëgg ba bëgg réewam mhm. à travers elle nag dama si bëgg boole képp koo xam ni mhm. gis nga ma te xam nga ni li may wax nii la ma boole la si fasaale la si mhm. di nuyu soxna Fatou si moom moo a solon moom moo may ne mhm. sooy dem léegi si émission yi dañ lay defal yére wolof <laughs> soxna Fatou si bu bu aéroport kooku mhm. tamit vraiment maa ngi koy nuyu di ko ziar di gërëm di leen sant yéen tamit merci beaucoup Diallo moom su ma ko tuddee damay am ñu ñu ñu si suuf wala ñu kii ñoom ñëpp xam nañu seen bopp ah, ah, sama sama personnel ah, ñoom suma suma Euh, c'est l'occasion pour man moo féliciter leen encourager leen. parce que merci beaucoup boo amee wéeruwaay dafa fekk ñu am ñu la téye. merci merci euh, beaucoup. le personnel de de Africa le comité directeur de Otra Africa. d'ici les jours à venir incha allah on va produire un document. Mhm. bon y un document qui existe. Mhm. il faut tamit ñu wax ko ñu féliciter ñu ko liggéey. waaw li stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière. Mhm. am na fi. vraiment ministère de l' intérieur mu nekk ay interministère yu ko def mhm. ñu mën si jàpp ay ñoom Karim Cissé bu délégation des Sénégalais de l' extérieur ñu koy nuyu di ko sant maa ngi tudd sànq le lieutenant Henri Ciss bu ministère de mhm. l' mhm. le l' inspecteur général euh, Mame Seydou Ndour merci euh, beaucoup vraiment ñu leen di féliciter sunu man dama am benn policier boo xam ne <laughs> président <laughs> <laughs> président lim nga président <laughs> lim nga lim nga ñoom ñu ngi ñu ngi lay remercier bu ñu ngi lay ñu ngi lay bu baax a baax amoon mbégte ak kontante bokk ak yow waxtaan bi président Sidna Alioune Diallo président Otra Africa alaaj ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ñu ngi aussi jaajëfal nos téléspectateurs mais aussi jaajëfal équipe technique bi nga xam ne moom la ñu àndal ci li nga xam mooy réalisation Souley Si Cheikh Niang ak Khady Sarr ci montage ñu ngi leen jox dig daje incha allah lundi prochain demain encore, même heure, même chaîne. Merci.